noo leen di mën a toogee. Hmm. signé ak état. Hmm. ne soble bi warul dépasser cinq cent francs pour consommateur bi. Hmm. yow nga jaay commer commerçant bi kilo soble kilo soble quatre cent vingt cinq francs. c'est l'idée quatre cent soixante quinze euh, l'idée même di toog autour d'une table di wax ni da ngay fixer prix loo xamante ni yow xamoo ñaata la ñu nar a ak naka lañ ko naree produire ak fan lañ ko naree produire c'est ça le problème. l'idée l'idée même. non absolument naka la ko état di xamee. Ah, c'est possible c'est pas l'état du Sénégal ah. may ma non pas forcément li ñuy subventionné ils ont subventionné l'engrais ils ils ont subventionné les semences de pommes de terre. mais li jëm si euh, xam nga euh, du engrais rek ak euh, du engrais rek moo lañu moo nekk si mbay mi dégg les difficultés que nous rencontrons ci wàllu financement. ça nous a causé beaucoup de problèmes et ça a causé xam nga am boo demee ren Fuuta moitié genn wàll ñi doon bay soble ren bayuñu parce que amuñu financement boo demee Potou Gandiol c'est la même chose parce que amuñu financement amuñu xaalis pour dem bay ji li tax ba ay li tax non li tax nga ne def ba nu ñu def ba am autosuffisance loolu c'est à un niveau politique c'est à un niveau de stratégie politique c'est à un niveau national c'est à un niveau étatique baykat bii xëy di dem ci toolam di bay ji moom autosuffisance këram lay xalaat te loolu la mën a gérer loolu la mën a la mën a contrôler mënul contrôler li nga xamante ni c'est euh, au niveau national c'est l'État qui doit s'engager à définir des stratégies pour jëm si loolu et j'avoue que l'État est en train de faire des efforts en cette direction parce qu'il y a eu des changements vraiment bi euh, depuis qu'on a le nouveau ministre il a fait beaucoup d'efforts et il faut reconnaître ça il ils ont subventionné euh, l'engrais à euh, hauteur boo xam ne vraiment c'est c'est c'est raisonnable ils ont subventionné les semences de pommes de terre yaakaar nañu ne ren ils doivent faire plus d'efforts pour que ñun ñu mën a occuper terrain bi nga xamante ni c'était entre les mains des Marocains pour que nous on puisse se pérenniser si yenn réew yi et surtout pour que importation xam nga importation mënoo ko bañ a def euh, pour la pomme de terre. mais il des périodes. parce que par exemple c'est impossible que au mois de euh, novembre wala au mois de octobre fii ci Sénégal wala au mois de décembre fii ci Sénégal ñuy consommer la pomme de terre boo xamante ni fii lañ ko bayee. si bu ñu amee kay non non c'est pas possible c'est pas possible parce que magasin de stockage yooyu bu bu bu dee magasin de stockage euh, loo xamante ni on l'a récolter au mois de avril. nga bëgg ko conserver ci euh, ko ay ay réfrigérateur du mois de avril jusqu'au mois de novembre bu génnee du am qualité bi nga xamante ni moom nga si séntu donc loolu c'est pas possible mu mel mu doon loolu mu doon soble si donc euh, il faut que ñu comprendre que importation ça en fait partie mais importation yi li ñu ci li ñu si séntu mooy mu combler déficit bi nga xamante ni moom la ñuy euh, jànkonte à une certaine période d'accord mm-hmm. d'accord